ay maqaam yàllaaw bisimil ilaay ci barkeb say ci faddilu mi buru yàlla dool dinoo ay maqaam yàllaaw aousubillahi min asheytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim barke borom Touba barke borom Touba barke Cheikh Massamba mbokk yi ñu ngi ziar bu baax a baax euh, di ñaanal euh, ki nga xam ne mooy Serigne Mountakha Bassirou Mbacké xalif général des Mourides yàlla na fi yàgg te ànd ak wér noonu la ñuy jaare bu baax a baax di ñaanal njabootu cheikhul xadim gépp Cheikh Ahmad Bamba waaye di ñaanal bu baax a baax umma islamique bi yëpp mbokk yi euh, ak ngeen ànd ak euh, ñun tey jii euh, ci li nga xam ne rek mooy seen émission bi nga xam ne tey dañ ci fas yéene ànd ak ki nga xam ne rek mooy Serigne Ibrahima Ndiaye Cheikh Ibrahima Ndiaye alquran mi nga xam ne tey moom la ñu fas yéene dalal ci li nga xam ne rek mooy seen émission bi nga xam ne ci la ñu fas yéene ànd ak yéen mbokk internautes yi nag ak mbokk yi nga xam ne yëpp ñu ngi ànd ak ñun te di ñu teewlu à travers ci àdduna wërngal këpp ak fu ñu mënti nekk ñu war a amal waxtaan bu am solo ak ki nga xam ne mooy Cheikh Ibrahima Ndiaye Alquran Cheikh Ibrahima Ndiaye Alquran di borom xam-xam boo xam ne ñëpp xam nañ ko maîtriser li nga xam ne rek mooy turu yàlla wi waaye it di yëngatu di liggéey ci li nga xam ne rek mooy ismulahi azam mu maîtriser ko lool ci lépp loo xam ne dafa jëm ci alquranul karim ak li nga xam ne moo jëm ci li nga xam ne rek mooy turu yàlla bi Cheikh Ibrahima Ndiaye alquran mbokk yi di borom xam-xam ñu xam ko au niveau national waaye xam ko au niveau international ci ñi nga xam ne yëpp ñi ngi ànd ak ñoom Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan dama lay bàyyi rek nga nuyoo ak mbokk taalibe yi ak mbokk internet yi nga xam ne ñun ñuy seetaan ñu fas yéene nag jubal ci li nga xam ne rek mooy waxtaan wi tey mu war a doon waxtaan bu am solo ci li nga xam ne rek mooy askan wi ak képp ku ñuy topp ci biir réew mi ak ci bitim réew. wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wa inniya uissuha bika wa suriyataha min asseytaani rabbi a'uuzu bika min hamazaati sayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yaxduruun bismillahi rahmaani rahim wala xawla wala quwwata illa billahi aliyul azim Baay Murit ñu ngi lay fay nuyoo di leen dalal di leen ziyaara di nuyu mboolem téléspectateurs yi nga xam ni ñu ngi ñuy suivre fii ci réew mi ak bitim réew di la wax ni la bismillah jërëjëf euh, Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan la ma am mbégte ak kontante euh, dalal la euh, tubaarkàlla fii ma la fekk nii tey la muy ci sa biir kër waaye tamit élégance boo xam ne nii la macha allah ku la gis xam ne alxuraanul karim ci ngay dund te alxuraanul karim dafa sopp nit koo xam ne dafa sell nit koo xam ne dafa civilisé nit koo xam ne dafa bëgg li nga xam ne rek mooy adduna ci li nga xam ne rek mooy tubaarkàlla noonu lay doxale kon alxuraanul karim rek moo wóor tey jii Cheikh Ibrahima Ndiaye mi nga xam ne rek euh, sadd euh, li nga xam ne rek euh, mooy maîtriser li nga xam ne mooy turu yàlla wi kenn dootu ko naatable ci li nga xam ne mooy biir réew mi dama bëgg nag tey ñu waxtaan ci li nga xam ne rek mooy lu aajowoo ci li nga xam ne mooy réew mi secret yi ci réew mi ci cosaan ak aada foofu laa bëgg nga waxtaan ak man tey waaw secret ci réew mi ci aada ak cosaan Baye Mouride li ci ëpp samay maama ko daan doxal kon xam naa ko hmm. boo demee dëkk bu ñuy wax Taïba njaay junne ji ñu njëkk xam ni junne la ci réew mi fa lañ ko xamee Taïba Ndiaye waaw hmm. ci daaray Matar Soob Njaay hmm. kooku moo jur ki jur sama maam hmm. alquranul karim ak ismulahil azam muy turu yàlla mbirum xalwatu fii ci réew mi ci samay maam la feeñee ñoo ko daan duggal kilifa yi ci réew mi yépp sëriñ ak nitu gouvernement. dëgg buur yi ak ceddo yi ak lu cosaanoo ci ñoom dugg nañ ci territoire Sénégal sëf sama territoire man. Hmm? waaw ndax samay maam. Hmm. ñi mee wuñ leen woon ndax Ismaïl Ansam. Hmm. Lat jamono bi nga xamee ni dafa jóge Kajoor jëm si Bawal. bi waree jaar Tayba dafa wax sama maam bind ko lettre yónnee ko jox ko ndaw ni ko na ma prépareel ay reer ne ko faraay reere door a jàll ndaw la bi mu ñëwee sama maam daa jóg yootu ko ba mu ñëw dagg nob bi laxas ko ci kaala ni ko boo demee nga wax lab jot ni ko na reere lii fii alquran a fi nekk ak tur yàlla mhm. ñun xeexuñu xulawuñ mhm. waaye nag ñoo ay ci xeexkat dëgg la tubaarkàlla xuloo boo xeexoo waaye yéen ay ci li nga xam ne rek mooy ab xeexkat euh, tubaarkàlla euh, ma dégg la ci li nga xam ne mooy say émission yoo xam ne nii def nga ko mu am solo lool réew mi dafa am ay rab ñu leen di tudd maam Kumba Bang di tudd euh, xaw ma nu koy waxee sax rab wi nga xam ne moo nekk fii ci Soumbédioune ak yeneen ak yeneen ba ci wax sax li nga xam ne mooy ay dëkk yoo xam ne fa la ñu nekk yow nga ni rab amul ci réew mi ci Ndakaaru rab dëkkul Ndakaaru de rab dëkk na ndakaaru waaw waaye dama ne la rabu réew mi dëkkul Dakar. rabu réew mi dëkkul Dakar. waaw rabu réew mi dëkkul Dakar. Ah, mi fu mu dëkk kon. rabu réew mi mu ngi positionné ci gorot bi nekk Kédougou. Hmm. foofu mooy dëkkuwaayam ci suufu xeer yi ndox mi daw ci kawam. Hmm. kooku moo njabootee rab yépp rabu réew mi lim soxla. Hmm. nekkul Dakar. li mu soxla nekkul Dakar. nekkul Dakar Dakar nag am na ay rab yu ndaw ndawaan yoo xam ni ay la leen moom ñu nekk ak ñoom ñuy jëfandikoo rab ya ñoo ko siiwal ci nopp nit ñi ba mu siiw ci ba booy dégg rab yow dangay jàpp ni ñooñu la waaye demen la ñooñu fa rab yi di nosee ak di fa noccee àgguñu fa maa ko wax maa ngi fii ci digg ndakaaru maanaam rab yi nga xam ne ñoo wër li nga xam ne mooy ndakaaru mbaa fe maanaam ci état major yi la ñu bokk rab yi dëkk ci ndakaaru état yi masoor yi junni yi ngànk réew mi ñoom sax bokkuñ ci mhm. maanaam la weesuñ seeni koñ ah? rabu ngor yi weesuwul ngor ñi a génn fii mhm. rabu sumbi jun yi génnul sumbi jun ñi uh-huh. rab yi ngànk réew mi nga xam ni ñoom ñooy rabi réew mi. Mhm. rabu réew mi jigéen la. rabu réew mi jigéen la. waaw bu amoon xew-xew boo xam ni junni yi dañoo war a daje. Mhm. junni yi ñu lay waxal yépp kenn ku ci ñëw dangay toog ca ginnaaw di déglu waaye nekkoo kuy toog ci kanam nit ñi la déglu. Mhm. yi ngay dégg fii Dakar. waaw nag da Ndakaaru da taatu géej gii da benn koñ am réew la entière moo xam ni. président yii jiite réew mi sax kenn ku ci juddoo Ndakaar daa moom boo ci xamee kenn nga wax ma président yi jiite réew mi ku ci juddoo Ndakaar daa amul ci dëkk dakaaru fii nee ma diw xaw ma ko amu ci amu ci kay noonu mu ci ñàkkee nag mm-hmm. te nga yaakaar ni ñoom waa Dakar lañ Dakar dong nga fi ne mm-hmm. noonu la ñàkkee ci junne yi am na junne yi ëpp solo ci réew mi teguguñ seen tànk Ndakaaru mm-hmm. yaa ngi dégg. réew nag day am rab woo xam ni moroomi rabam yi ne ci yeneeni réew moom lañuy ñuy jëflanteel Sénégal rab wi jigéen la. Mm. mën naa laa wax tur wi wax la ni mu dëkkee ak fi mu dëkk mais fii dañuy sàcc léegi xam-xam te man dama teel a yeewu ndax dama gëstu dox ba sonn. dëgg la 33 pays laa def. Mm-hmm. di gëstu mbirum rab ak junne ak xam-xam bu ñuul. muy xam-xam boo xam ni mm-hmm. bokkut ak xam-xam bii ma yor mm-hmm. ñaari côté yëpp dama ci am maîtrise laal nga ci ñaar yëpp ñaar yëpp dama ko maîtriser dëgg la mais boo demee Côte d'Ivoire rab wa jigéen la mm-hmm. mu tudd mami wata ñëpp xam nañ ko noonu mu amee nag yeneeni rab noonu la amee Sénégal rabu jigéen woo xam ni moo boof ci taatu xeer yi fii ci kee dugg kooku mooy rabu réew mi waaye yii ngay dégg ndakaaru ay rabi koñ la. waaye turam mënoo eh, ko wax ndax. turam xam naa ko ndax bu ma ko waxee. gars yi da xëy ñu dégg débat bi kenn ku nekk di wax tur dëgg la te sama secret la fa secret la nag sama maam laa ko yaa du ma ko pasar pasare waaye xam naa ko ah. noonu réew mi amee rab mm-hmm. bu jigéen noonu la amee rawxaan boo xam ni mooy rawxaanu réew mi réew mi tamit am na waaw rawxaanu réew mi. Mhm. wax naa ko barki démb. li leen sama bët tege na ci moom. rawxaanu réew mi moom fu mu ne. waaw rawxaanu réew mi nag moom. Mhm. dama la gone gay nàmp ca Tamba. ni soow mi di duggee ci biiru biiram moom. waaw gone gi liir bi. waaw di génnee ci weenu yaayam. Mhm. noonu ko nopp xale bi jigéen ba koy dégg noonu la ko rawxaanu réew mi di déggee. partout dans le Sénégal. yaa ngi dégg mhm. xam-xam dafa jot ñu génne ko gis nga am réew mhm. day am ku fa nekkal yàlla jiite réew mi mhm. am ku fa nekkal nit ña jiite nit ña am junne ju jiite junne yi am rawxaan bu jiite rawxaan yi fi nekk yépp rawxaan nag nit da koy am ab àll bu kenn dëkkul day am rawxaan bu fa dëkk ci àll ba ndax yàlla li mu def defu ko rek ngir nit kese. da koo dénk nit ñi nag ñuy contrôler waaye am na yeneen yoo xam ni buy jóge ci yàlla dafa am fu muy jaar ba agsi ci nit ñi. Mhm. rawxaan ci la bokk. Sénégal am na rawxaan. Mhm. am na jamono nag ca gannaaw. Mhm. gis naa njiitu réew mi jóg di julli ji it ci ak korite. rawxaan bi jugal boppam ñëw boof ci kawam loolu maa teg bët. gis naa itam rawxaanu réew mi sëñ Sidi Muxtaar Mbàkke génn àdduna mu déplacé wu dem Touba def fab diir door a déplacé waat dem ci bërëbam. loolu yaa ko gis. loolu yooyu man maa ci man am naa kas fu damay xam li xew. Mhm. yàlla dama dimbali. Mhm. bi ci topp mooy. Mhm. ci biir bàttin. rawxaanu réew mi dafa am heure bu muy dox. dafa am heure bu muy dox. waaw rawaanu réew mi. rawaanu réew mi murit mi ngi dox waxtu takku saanu suuf ak waxtu yor-yor waxtu woo xam ni. jant bi mënagul a lakk waxtu woo xam ni jant bi mënatul a lakk kenn mooy takku saan. ñaari waxtu yooyu ci lay dox. rawaxaanum réew it pour dimbali sëriñ ci door a xam asraar di wax du lu ñuy jéem a jàpp kenn mënu ko jàpp moom njiitum réew ñoo yam njiitum réew boo dajale woon junni sëriñi njabar mënuñu ko jàpp mm-hmm. waaw mën naa daanu nag ndax kàttanu yàlla moo koy daaneel mën naa jaare ci nit ñi daanu mm-hmm. waaye maa ko jàpp ci mystique wala maa ko njibar ba daaneel ko ku la ko wax teyal ca wax ci njiitum réew njiitum réew njiitum réew dimension dépassé na yooyu dëgg la ndax yi koy protéger yépp bu ko waa réew mi xamoon ñoom buñ xëy ñu muslu ci moom dëgg la du neen daal. waaw du neen du fo. Mhm. du amit ay du décision yoo xam ni gone gu jóg rek wax ci. Mhm. njiitum réew leneen la. dëgg la am réew. waaw lii yëpp liggéey bi la ko wax. waaw mel ne gaa yi ngi woote. sëriñ bi maa ngi jéggalu tuuti rek damaa ne ci émission après ñu woo ma incha allah baax. dëgg la bismillah waaw yooyu. Mhm. noonu lay demee. Mhm. moom téléphone bu sëriñ moom dañuy muñ. waaw <laughs> waaw noonu la téléphone bu sëriñ. moom ci yéen sonné lay ko lijjanti su ko defee. loolu mooy rawxaanu réew mi. Mhm. président nag kenn mënu koo jàpp mystiquement. ku la ko wax teel ca lam lay wax président bi moo la gën a xam ni moom. guddi gi ko suñ borom joxee nguur gi. xam na ko xam na ne mi ngi ci nguur. guddi gi ko suñ borom di rocc. nim la leeree noonu la koy leeree balaa kenn yëg ni day falu moom mi ñuy fal da koy yëg mm-hmm. balaa kenn yëg ni day folleeku moom mi ñuy folli da koy yëg mën na faa nekk di xëccoo waaye xam na ni nguur gi jeex na bu yàgg njiitum réew suñu borom ma koy tànn samp ko fi képp koo xam ne nag yaa ngi jéem naan maa ngi nangam mystique karang-karang dugg ci ay bagage mu jëm ci li nga xam ne mooy njiitu réew jàppal ne moom euh, tubaarkàlla foofu moom daanu nga foofu moom daanu nga te itam li nga xam nax na la ndax xamagoo ci dara mm-hmm. xam-xam boo ko xamee mm-hmm. li jaadu nga ciy def li mun li ci kenn munut a def doo ko ci jéem dëgg la yaa ngi dégg mm-hmm. côté boobu noonu la demee mbirum jiitum réew du fowukaay ba ku jot jàng ñaari xaala wala ñetti xiila bëgg a jóg wax ci moom wala nga dal ci kawam loolu dafa sensible boo gisee nag ma lay baaxee lii daa am ñu yër lasraar tuuti te lasraar soriwul yoonu gàtt la dëgg la du ñaar juróom-ñaari bunt benn bunt la mhm. te xam-xam ci ismullahil azam juróom-ñaari bunt la nit ñi nag ñi ngi ci coow saa su ne asraar asraar asraar euh, euh, doon ci indi loo xam ne ni comme nee nga asraar lu gàtt la waaye bëri na ay mbir yoo xam ne mu ngi ci biir ndax mën nga ñu cee tojal loo xam ne dina mën a dugg ci bopp nit ñi ngir ñu mën a xam lan mooy asraar gis nga asraar première bunt bi waaw li ci dox lépp alquran la mhm. lettre yi ngay jëfandikoo alquran la. waaw bi dong nga dul indi ci alquran. Mhm. te cadre bi pour mu jàpp. Mhm. ay rawxaan a koy téye. dëgg ko. Mhm. mi mel ni nit. wuyu ko ñu yeggal. waaw. téléphone bi duñ ko toppee duñ fi jóg. waaw léegi euh, gis nga ni ngay gisee nit ki ñëw dagg musallas dugal lim yi muy dugal mm-hmm. rawxaan bi téye musallas mi ak mbooleem arkaat yi mu koy wërale loolu lépp ci alxuraan la bawoo mm-hmm. kon kon kon bi doole ji bëriwul mm-hmm. alxuraan moo koy dooleel doomu aadama bi ngay jàpp itam li ngay soxla ci moom ba jàpp ko muy rawxaanam li koy téye ci biir alxuraan lay jóge moo tax fi ne sëriñ si nga dégg ñépp ñu yëngu ci lasaar ay sëriñi alquran lañ. dëgg la yaa ngi dégg. Mm-hmm. dafa am pexe muñ ci boole moo xam ni bopp ci. Mm-hmm. mënoon nañoo dox ci alxuraan ji sans loolu te muy dox niñ ko bëggee. Mm-hmm. waaye ñàkk àgg nag ci dimension boo xam ni maîtriser nañ ismul azam des fois moo tax ñu koy cadre foofu. nga xam ni asrar daal su ma la ko doon wax. ab yóbbante la. waaye bokkut li nga xam ni yaa ko yor sa loxo yóbbu ko ba ag teg ko fu wër fu leer door mhm. wàññeeku ñëw toog mhm. noonu la wutee ak ismilaal ahzam dëgg la ismilaal ahzam boo bootee gars yi yaa yóbbul sa bopp dëgg la lasaraar nag boo yenee rawxaan yi ngay jox ñu yóbbu mën nañu ak mën nañu bañ a dëgg la ndax yow mi ko def ñi moo fii nga toog. dégg naa la de <laughs> xam nga lii euh, waa réew mi dañ ko yittewoo euh, ngir xam ko ndax euh, tubaarkàlla ku jug rek yërndu téere yi yërndu nangam nangam ndangam seexul asraar la dafa bari ci li nga xam ne rek mooy réew mi ndaanaan yi nga xam ne dañoo mel ni yow ñi nga xam ne tubaarkàlla alxuraanu karim la ñu wax nga ko sànq ci sa biir wax say maam ci wàllu boppam rab mosu leen a yàpp ku nekk ci réew mi ak loo xam ni dafa jëm ci wàllu ismulaay azam ak yoo xam ne dafa jëm ci alquranul karim euh, tubarkalla maîtriser nañ ko nga xam ko jàng ko donn ko wër nag ci àdduna wërngal këpp def ay réew yu bari la ba suñu borom may la tey léegi ma wax la man Ibrahima Ndiaye alquran Cheikh Ibrahima Ndiaye alquran bu dee ci junne menn man dong maa la wax man a wax ni la mhm. sama maam junne ji mu amoon nii la tudd mennum yow mii beneen sëriñ bu ko bu ne daa am junne ah. na wax nu junne maamam tudd ba demee Tiwaawan waaw ah. ak li ko wër lépp waaw ah. nee na Cheikh Ibrahima nee na maram golo maram golo soxnas maamam la woon ba xam koy weddi maram golo waaw maram golo waaw rab wa ñuy wax maram golo waaw soxnas la woon xam koy weddi te déglul sëriñ si ci réew mi yëpp ku lay wax jenn junne. man maa ngi doog a dégg tur woowu golo kull sant njaay ci Afrique xam nga ko waxuma la Sénégal sama soxna maam la woon fii ci Taïba <laughs> kull kuy wëlliyu daa nga teew ci moom ba léegi nii mi ngi dund waaw taatu daqaar dong boo demee ci àllub Taïba bi sant njaay toog ca sotti ndox mu tàng doo gis tey golo moomu mm-hmm. sama maam rek moo doon sëy moom soxnaam la keneen ku mën a wax lii na ko wax ci réew mi. maa koy doog a dégg tey. dama ni ku am junne wala nga génneel turam nga wax nga wax junne juñ xam ba pare nga ni sama maama ko yoroon na ko keneen def. Mhm. tabarkaala. mën naa la jox nag juróom fukki junne yi nekkoon ak samay maam seeni tur comme ni ma la mën a joxe maram golo mii waaye dama lay jox benn di laaj nag keneen ku joxe benn. doo ko gaaw a dégg de. kon nañ dem. kon nañ dem euh, tubarkàlla Cheikh jaay Ndiaye alquran mbokk yi moom la ñu àndal euh, ci li nga xam ne rek mooy émission bu am solo bi mu war a nag génne li nga xam ne rek mooy ay secret def révélation boo xam ne bu doy waar lay doon euh, ci li nga xam ne rek mooy réew mi ak ni nga xam ne noonu la ñu fa fas yéene ànd ak yéen secret yi istixfaar réew mi yitte woo ko lool lool lool Cheikh Ibrahima loo ñu ci mën a dimbale ak ixlaas. buntum ixlaas dama yàkkamti woon journaliste bu ko laaj ba ma leeral ko nit loolu yi laa bëgg na ngir noppal leen mhm. ci seen diggante ak seen borom waaye ci seen diggante ak seeni moroom gis nga nit mhm. koo fekk ñu nopp noot ko wala ñu noot ko ci aw ci am réew maanaam ñu teg ko lu mun lu loo xam ni sañu ko bañ maanaam yan la loo àttunul mhm. dafa fekk kooka du jegewul suñu borom du tuubal yàlla ñun ñëpp boo leen dee noot mhm. ba agsee ba ci ku yor tur yàlla doo ko noot dëgg la ndax doole ji nga koy nootee ak doole ji mu yor benn la te koo mënul dara doo ko duma kon jëfandikoo turu yàlla wi ci li nga xam ne mooy ay tuub dina am lu muy lu muy lu muy lu muy aar ci nit ki bu ñu agsee ci ixlaas ma leeralal kiy jëfandikoo lixlaas guddi gu nekk dara jaam fi mu toll waaye nañ wax ci istixfaar nañ wax ci istixfaar waaw istixfaar mhm. dafa am tariqul istixfaar mooy yoon woo ciy jaar ci juróom-ñaari fan yi bis bu nekk li ci liggéey ak aaya bi muy àndal yaa ngi dégg maa bu njëkk bi waaw boo ko liggéeyee tuub tuub gu sell te mm-hmm. tuub yomb dëgg la sëriñ si rawoon ci réew mi mm-hmm. biñ leen laajee am na ku ci tudd Cheikh ma Niass dëkk fii Kaolack dani leen mm-hmm. dem leen ngeen jéggalu waaye tuub mooy loo xam ni jamono bi nga tuubee li nga defoon doo ko defaat te doo ko defaat di des si dund. Mhm. te da koy bàyyi ci saasi. loolu mooy tuub. loolu mooy tuub. Mhm. loolu sax loolu dara indi. waaw da ngay bàyyi ci saasi te dootoo ko defaat ci li des sëg dund. Mhm. boo ko defaatee rek tuub ga wéru. waaye jéggalu yàlla nag moom mooy yor sa kurus toog jàkkaarloog moom di ko wax ni maa ngi jéggalu maa ngi jéggalu nag ak tuub naa bokkul ndax jéggalu mën naa bañ a ànd ak yéene waaye tuub day ànd ak yéene mhm. tuub day ànd waaw mhm. wan ni yeti da nga yéene ala yahuda dootoo def fi mazen bi bakkaar min amrihi ci li des ak dund mhm. waneetulkate da ngay bàyyi almaxsi tam mooy fi saaxatihaa ci waxtool li lax dari wax kon tuub moom day ànd ak yéene Sénégal nag da ngay gis ku toog fi mu toog fanaanee tuub te yéeneegul tuub gi. dëgg la maa ngi dégg dëgg de. maa ngi dégg. dafa am yoon. Mhm. woo ci jaar wu tudd tariqul istighfar mooy secret ba juróom ñaari fan boo ko defee istighfar nim ko niñ ko war a defee doo amati aajo bu munta faju loolu secret la aajo bu munta faju moom dootoo ko amati dëgg la sa xol day day féex day ubbeeku dootoo dund ci ay xelake xalaat da ngay dund ci ruux ndax nit dundu ruuxam moo xatul waaye leneen lu mu bëgg a dundee lu dul ruux gi mhm. dina ko indil jafe-jafe dëgg la de nit ci xol lay dund ci leer mhm. ubbi sa xol bi yaatal ko xajal ci ñépp nit day bëgg ba bëgg ko bon sëriñ walaay ndeysaan buñ la waxee lu tax nga bëgg nga damay xool yàlla mi ko bind ci moom allahu akbar waaye bu dee xajoo goo kenn ah àggagoo fenn. yor xol bu xat bu bon. waaw loolu moom. doo dem <laughs> da ngay wëndeelu boo yoree xol bu xat bu bon. waaw waxuma doo dem waaye da ngay mooy ku dëgg la. da ngay dox di wëndeelu te war a continuer kuy wëndeelu nag te war a continuer daa jugugul fi mu toog ku jugugul fi mu toog nag mi ngi dox waaye daa jugul fi mu taxaw. dëgg la. yàlla yàlla musal ci nit ku gëlëm. yàlla yàlla musal. tariqul istixfaar dafa am yoon. ñi nga xam ni jokkoon nañoo man laaj ma ko dinaa leen ko sànni mm-hmm. ci whatsapp yi ndax secret la ëpp na dugal ci tele mm-hmm. bu ko defee mu ñëw ci ixlaas ixlaas ixlaas dañoo mos a jékki-jékki rek gis asamaan si niis ci digg bëccëg ba mel ni luy waaj a lëndëm mm-hmm. Seydina Ali na ngi taxaw Seydina Bakar a ngi taxaw Seydina Osmaan a ngi taxaw Seydina Omar a ngi taxaw Rasulullah a ngi taxaw yonente bi yonente bi ni leen jàkkaarloo nag jàkkaarloo leen nag penku dafa am saxaaba bu daanu ci xare ya malaayika yi di wàcc bëgg a teewee si robam mm-hmm. moo tax ñu romb jant bi mu lëndëm nii mm-hmm. Seydina Ali ni ko waa moom fu jële jële daraja jooju ak grade yooyu mu ne ko dafa bokk ci jëmm yi nga xam ni bu guddi jotee ñoo ëpp lu ñuy jàng ixlaas ci kaw suuf si mm-hmm. waaw man nag dama koy waaj a ji fa mu nekk nag daa sori da ngay taxaw jàkkaarloo penku yéene te xaar ma dem ñëw. Mhm. lii ci jamono yonent bi la am. sallallahu alayhi wa ci kuy jëfandikoo ixlaas ixlaas. Mhm. wax nañ ni ñi yéeg jëm ci yàlla ñi ëpp luy àgg mooy ñi nga xam ne dañuy jëfandikoo saar woowu guddi. ixlaas ixlaas. sirru laa ilaaha illallaah la ñuy yéegee. Mhm. sirru salaatu ala nabi. sirru suuratu ixlaas. ñu ni ñi ëpp ñuy àgg mooy ñi nga xam ni dañuy jëfandikoo ixlaas te ixlaas képp koy jëfandikoo surtout dañ koy xam xaddatu ilahi comme ni ñu la xamee fii ci àdduna maanaam di ko faral di jëfandikoo lu baree baree bari wala dafa am ay lim guddi dafa am ay lim mm-hmm. yonent bi ci ñett la ko commencé ñetti ixlaas yu ne kaamilub alquran lay wecc loolu waxu yonent bi la mm-hmm. téeméer bi am na loo cay am junni bi am na loo ciy am douze mille nag li nga ciy am xajul fii ci àdduna dëgg mu ne qudratu xaadiru xadirul muxtadir te juudu lii mi minan xat tabtadir mhm. te li ci bawoo mhm. ci ngëneel li ci bawoo ci leer sëriñ loolu leneen la wallaahi ñoo bëgg sonn ndax dañ fee ba bagage yi waaye doomu aadama mhm. li koy alimenté yàlla boole na koog moom kasre ko ci ab téere jox ko ñam nag xam ñam nag xam waaw comme nga àdduna dafa am yu ñu fi war a waxtaanee léegi. ma waaw damay gis koo xam ni. day doonu sénégalais. ay maamam dooni kàng fóore mhm. mu doon taalibeb Sëriñ Tuubaa wala taalibeb Seydi Aji Malik wala taalibeb Baye Ñas mhm. wala mu seede sahidallah mhm. ni moom dafa gëm diine yàlla ji jóg ni day ñaanlu ci yàlla wuti ku yori bant du dem wata wuti yori béjjën wata wala mu jóg wuti kuy ëf di jat taka fas xam-xam bu ñuul loolu dafa ju dafa dafa yorul mbirum jullit ab jullit jamono bu jugee jëmul ci yenent bi jamono bu jëlee yaakaaram def ko fudul ci alquran hmm. réer na laay wax nga dëgg gindi nit ñi nag jot na dafa jot sëkk te nag kuy sàkku xam-xam hmm. jëm ci ku xamul dara foo koy amee xaw ma ko bari na sëriñ wala bari na ay nit yu sampi samp nga jëm ci ñoom boo àggee waxal ak ñoom ci téere bi mm-hmm. masala mu ñu lay leeral amu ci dëgg la de yor bant yoo xam ne nañ bàyyi diwa ko doon wax bàyyi diwa ko doon wax rek nga wax jëmale penku sangu gars yi so summeeku di sangu yooyu man naa ñàkk ci réew mi bi gars yi de sangu nañ ba liw sedd bii waaw sangu nag ba liw te gisoo dara bu yàggee da ngay bàyyi dëgg la xam nga euh, Cheikh Ibrahima euh, alxuraan ji ku mu doyul dara dootul doy alxuraan ba mu wàccee ci yonent bi sallallahu lay wa ba léegi amul araf wu ci soppee waaw xam nga alxuraan baat bu njëkk bi mhm. moo dem yàlla. Mhm. dëxëñ na ko ci biir mooy bismillahi rahmaani rahim. dëgg la. mboolem dimbalul yàlla. Mhm. dëxëñ na ko ci biir. alquran nag dafa am ay code mën nga koo jàng ba ni ar. Mhm. te code yi doo ko xam. dëgg la. waaye secret doomu aadama. sirru sirri bi. mi ngi ci biir alquran. sirru sirri nit. Mhm. sekkaram nit ba tax ñuy wax nit dëgg la mu ngi ci biir alquran ndeysaan nit nag dafa am ñett yu ko composé al adamiya mooy yàppam ak yaxam ak yaram ak deretam mhm. al insaniya mhm. ca la xel sosoo ak mbooleem loo xam ni mën naa nekk ci moom ci yëg-yëg ar ruhaniya mooy li bawoo ko ci suñ borom nekkal yàlla ci moom ñett yii Uh-huh. soo amul xam-xam bu ci mën a am accès. waaw bal nit ñi. lay wax nga dëgg. boo amul xam-xam bu lay xamal wàllu insaan yëg nit. Mm-hmm. mooy tax bu feebaree nga mën koo faj. wàllu adam yëg yi mooy tax bu feebaree mën koo faj. Mm-hmm. boo amul xam-xamu ruxaaniya mooy lim soxla ci suñu boroom nu muy def ba am ko yow nooy def ba jotale ko ko mu loolu mooy sa xam-xam yooyu nag boo ko amul baal nit ñi. ndimbal li leen di dimbali nekkul ci yow buñ ñëwee daal la suñ suñu Ahmad Rafa ay Mbàkke waxoon def ko waaw li ngeen ma yéen attanu ko yénni leen ma ay eh, dëgg la daa jot ci sëriñ si jot na sëkk nag <laughs> jërëjëf eh, Cheikh Ibrahima Ndiaye alquran tubaarkàlla gis nga njàng dafa wóor njàng dafa wóor te lépp loo xam ne xam nga ko maîtriser ko ci li nga xam ne rek mooy téereb yàlla bii di alquranul karim nga xam ne ba mu sosoo ba léegi araf mu si cee soppiku nga maîtriser ko xam la ca ne ah Cheikh Ibrahima gàcce ngaalaam wax dëgg yàlla tubaarkàlla macha allah fi nga xam ne euh, tubaarkàlla yaa ngi fay ànd ak doomu aadama yi te di leen gindi di leen delloosi waat suñu borom moo am fay yàlla na la suñu borom fay ndax li ngay wax alxuraanul karim la te kenn du ko dindi lu wér la ndax ci téereb alquran bu yàlla bii nga xam ne amul lu ci nit di dindi foofu nga koy jëlee euh, la muy lu wér euh, mbokk yi ñu leen di fàttali rek yéen a ngeeg euh, Cheikh Ibrahima Ndiaye alquran mbokk yi nag la léppam muy borom xam-xam ci li nga xam ne rek mooy wàllu alquranu karim maîtriser lool li nga xam ne rek mooy turu yàlla bi ak li nga xam ne mooy ismullahi azam amu ci morom la fi nga xam ne mooy ci biir réew mi dañuy dellusiwaat waxtaan ci li nga xam ne rek mooy Euh, tey jii ñi nga xam ne euh, la wutin bi metti lool wàll it li nga xam ne mooy wàllu kaaraange kaaraange goo xam ne nii ku mat sëkk lay doon saf-saf ci li nga xam ne mooy nit ki Cheikh Ibrahima ndax loolu mën nga ci dimbale wàllu kaaraange kaaraange gu wér fi mu ne bari na kuy lijjanti kaaraange mhm. benn aaya alquran benn aaya alquran buñ ko tàggatalee rawxaan yi mhm. bindal ko ko mhm. dugal ko ci biir kun fayakun mhm. ko ci ab jaaro génn juróom ñetti rawxaan yi yi bi àndal nàndal leen jox ko ko bu doon dund juróom ñaar fukki at dut am soxla ci kaaraange allahu akbar ne maaya mooy ban mooy ah, ah moom kay laaya laaj aaya bay ban salaamun uh-huh. xawlan uh-huh. min rabbi rahimin salaamun xawlan min rabbir rahimin juróom-ñetti rawxaan la nekkal aaya bi mhm. bu njëkk ba mhm. jëlal axla yóbbin mhm. taamin tammuumin xaa'imin xayyuumin nafsin barxasin dakkal la rawxaan yooyu benn bu ci nekk dañ ko tëbb ci biir aayab alquran xam nga may joxe secret bi nag qaa'imin qayyumin yaa qayyu yaa qayyumu yaa zal jalali wal ikram bi rahmatika yaa arhamar rahimin rawxaan bu ne dañ koo tëbb ci biir aaya alquran salaamun xawlan min rabbi rahim doy na sëkk ci kaaraange te doo ci sonn xamal fi ngay jaar rek ak limba ak lim baang nuñ koy doxee boobu mën nañ koo def ci jaaro mën nañ koo def looy sangoo mën nañ koo def loo naan mën nañ la cee defal tul mën nga cee aaree nit ki nu ne ma ngi nañ ko daan liggéey ba bu sa yaram tàngee nga toog ci lalu weñ da ngay gis muy commencé wàcc salaamun alam mi rabbil alamin Cheikh Ibrahima daal jaaxal nga ma nag ba ca topp jëlal ayat alquran bu leer naññ bul dem fenn téere baa ngi nii waaw wallahu yaxsimuka min annaasi mhm. laay boobu mag ñi nee nañ buñ leen buñ nëbbul woon kiiraay yi man ngeen cee voyagé buñ leen nëbbul woon kiiraay yi kiiraay yi maanaam nit daa am ay kiiraay kiiraay mag ñi nee nañ buñ ñu nëbbul woon kiiraay yi aaye boobu mën nañ cee voyagé duñ soxla avion ne ngay soxlaa ku nekk États-Unis mhm. woo ko léegi jox kook moom wax ak moom cib téléphone aaya boobu ay secret ngi ci nee nañ bu ñu ko toppoon di ko lëñbët di ko lëñbët man ngaa toog fii di wax ak ku nekk États-Unis jëra mu raw téléphone yi mm-hmm. waaye dañoo am ay kiiraay alxuraan daa muy kiiraay mm-hmm. doole ji duñ ko yàlla bàyyi woon noonu rek àdduna bi lu neex waaye def wala yansimuka minan naas yi xumayni mm-hmm. daana ci wàcceb avion yóot teg ci suuf laytalaa xumayni waaw ci ab avion daanam romb di naaw mu jàpp ko teg ci suuf laa la wax ci doole rawxaan boobu mm-hmm. wàcce ko ci suuf si dootu dem du ko romb ci kon alxuraan nañ ko gëstu bàyyi murit lépp a ngi ci biir lépp a ngi ci biir ndax suñu boroom ci boppam moo wane aw meloom ci mhm. ci biir alquran parce mhm. que alquran lu yem moom doo ko gis déedéet lii ñuy saxal ci nopp nit ñi weddi naa ko lenn lu gën a gaaw alquran amul alquran alif gi dong moo gën a gaaw melax ci ñaan yàlla mhm. waaye nag boo gisee ku munta ñaan moom nu mu def ba ñaan rek la waaye lépp lu waaye di ñaan ci yàlla la ca gën a gaaw mooy alquran maa la wax lii hmm. yonent yàlla Souleymane yàlla dajaloo na ko nit ñëpp dajaloo ko junne yëpp mu yuluf njiiru àdduna gépp ku fi am nguur moo nekkoon sa buur hmm. moo am na mu soxla ñaar ñii ñëw taxaw kii moo représenté junne yi ëpp xam-xam ci monde bi hmm. kii moo représenté borom xam-xam yi ëpp xam-xam ci ismul al azam muy sikkar mhm. ndax ba ñuy wax borom a xam sax borom téere yaa ngi fa waaye ka ëpp lu muy sikkar lañ woowi ni ko kaay toog mhm. junne yi xam nga kan mën a saw baa ku dul man di la la nit ñi xam nga leen représenté waaw asix bun balqiya Souleymane ni saw baa affaire nu muy demee mu ngi ko diggante deux euh, jug gi ngay ñëw fii toog ba ni ngay jugee waxtu yooyu boo ko nattee mooy diggante jug ak toog gi junne ji wax mooy Souleymane bu jugee néegam ñëw ci xadra bi muy firee alxuraan di leeral téere bi yàlla bi mm-hmm. ba na muy delluwaatee loolu mooy diggante jug ak toog mm-hmm. loolu ëpp na sept heures de temps mm-hmm. yaa ngi dégg waaw bu mbalx ni ko man ci diggante xef ak xëpp sa xef yi buy wàcc sa bët balaa dal ma indi ko teg ko Souleymane gestu gis sées bi. waaw maa la ko wax. ni ko yow Asic ñun pareeguñ ci waxtaan wi sax nga indi ko noo def ba indi ko mu ne ko ilaa bi isnillahi ci ndigalu yàlla. maa la ko wax. doomu aadama rek muy jëfandikoo ndigalul yàlla directement. Mhm. ba defu sama waate wal ardi wa isaa hada amran fa innama yaqulu lahu kun fa yakun kooku nit la. Mhm. du junne du rab du malaayka loolu loolu nit la. Mhm. ma am amruhu isa arada shay'an an la lahu kun fayakun kooku doole nit la doole jooju doomu aadama la ko yàlla jox ndax amaanata gi nga xam ni moom la yàlla siq ak nit ñi dénk na ko montagne yi at nuñ ko mu dénk ko junne yi at nuñ ko mu dénk ko malaayika yi at nuñ ko mu dénk ko nit nit ni ko waaw at ma ko waaye téere ma ko ma ma yenu ko wallaay de suñ borom fasante moom ko la def ko muy xalifatullahi fi ardi wér na ñun xalifatullahi fil ardi sama maam Seydina Ibrahima alayhi salaam sama maam la. xam mhm. loolu boo ko waxee. gars naan fu mu doonee sama maam. waaw. ci leer. waaw wa kasalika nuuru Ibrahima sama samawati wal ard li yakuna minal muuqinin dama cee branché wu man. maa la ko wax. fa tabarakallah foofu bàttil la duma fa <laughs> xam fi nga bokk xam li ngay wax euh, tubaarkàlla euh, kon mbokk yi ba tey xam naa ne li ñu desee euh, ci li nga xam rek mooy waxtu wi bariwul wutin bi ak gars yi lu leen tere am waaw man day li jaaxal ci doomu aadama mooy mu soxla alal te ko loolu moo jaaxal waaye am alal jaaxaluma ci nit mu soxla alal te amu ko waaw moo lay jaaxal waaw waaye mu am alal jaaxalu la yow. jaaxalu alxuraan dama ne ci benn jàkk benn aaya di ko jàng ba ci yàgg ma tëjaat ko ni ko ni ma dencal ko yàlla fim ko dencal boppam. Hmm. ay gars mu lu leen tee gis lii laal ko. <laughs> lu mu doon <laughs> <laughs> xam nga dafa am waa ji ñuy wax saxla bata waaw. ci jamono yonent bi dafa ñàkkoon ba benn sër la am mook soxnaam. bu julli jotee fajar buñ noddee yonente bi li ko gënoon a concerné ci nit ñi nag muy jullik fajar ku manqué dina la laaj mhm. da daan ñëw toroxlaayab sëram julli ci genn fajar mu ñëwul gaa yi gisuñu ko fat yaakaar ne yonent bi yëgul ni ñëwul ndax xool na place am gisu ko fa yonent bi laaj te ñu ni ko sawaay ñëwul yonent bi woolu ko laaj ko la tey julli ci fajar mu ne ko sër benn lañ ci am te daa tooyoon ma bañ ko indi ci jumaa ji déranger nit ñi cey yàlla yonent bi daal di koy ñaanal yàlla ni ko yàlla na yàlla wërsëgal saxla ba hmm. ba ko yonent bi ñaanale ñu bëri ñi lay jàngal histoire bi xamuñu nu demee ci biir waaw waaw tojal ma tuuti mu neex waaw sama maam Mbay Isa Ñang nee na ma waaw sama bi ko yonent bi ñaanale mu jóge ci kër yonent bi di dem dafa doon dem ci yoon wi am ko saraxum xar hmm. moo ca teg mu ne xar ma daa ëmb ñaar doom ba mu demee xar ma def ñaari guddi këram jur. waaw am sëriñum ñaankat boo xam ne doon ñaanal benn buur. Hmm. ni ko xar mu am ñaari doom yu niroo ngay soxla. waaye ba mu ba muy wër di wër di wër di wër ba ak kër saala ba fekk xar mu saala ba jur ñaari doom yooyu. Hmm. saala ba nag daal di moom it amul yeewuteem laxas ca njaay ma jaan. waaw waaw. ni ko ni ko sama ñaari mbott yi yonent wee ma ñaanal ma génn ñu sarax ma leen dama ko fiy téye. ndax dama bëgg mu doon alal ju barkeel buur bi ni ko lii yow dong ko am ci dëkk bi la ma koy jënd waaj ci yàlla waaw ah? lu amul seede baaxul <laughs> lu amul seede cool ni kurru cool ni kurru saxla ba ni ko léegi mën naa ko koy wecc mm-hmm. boo fi indilee juróom ñaari tëngi giléem yu jigéen ma jox la benn boo indiwaatee benn ma jox la ko nga xamante ni quatorze giléem la jaayee ñaari xar yu ndaw ya loolu te xaram ma doo nga fay juri ñaari seex muy weccante di jaay dem na ba alalam moom sax la ba xajul màkk waa màkk àndandoo def réunion génne ko màkk ngir alal ju bari sirru bi ko yonent bi ñaanalee alxuraan hmm. daxañ nañ ko ci biir koo ci ñaanal mu dérangé nit ñi ci alal ak ku mën a doon te mu ngi fii mu ngi fii fii da lépp naa ñëw dara bawul yàlla dafa ni la commencé ci aadama noyyi gëm njëkk noyyi ba kii mujj ci suuf si lépp a ngi fii ci alxuraanul karim ci alxuraan kaamil bii waaw man romb naa ko liir ko la yonent bi waxoon ba montagne yi màkka yi dajaloo doon or ni ko dootuñu buuse mi ngi fi ci alxuraanul karim waaw nga maîtriser ko lool waaw salaatu naari waaw boo ci musaana ñaanum ndox taalub sebu di ñaan bala ngaa jóge fi ngay ñaanee ndoxum taw mi wàcc fay taw bi fay fay sëb bi mm-hmm. ndax gaaw gum gaaw ci aajo salaatu naar yu mi ngi fi. gars yi dañoo xamul lu ñuy ñaane wala lu xew wala dañoo xamul li ci biir wala dañoo xamul fi mu ne. waaw xam nga alquran pour nga gis ko. il hmm. faut nga am fathul akbar. fathul akbar ngir nga am ko faw nga werd tur yàlla. ba mu ñëw tur yàlla muy dictation bi lay dicté sa borom. suñ borom nag. ci moom ngay jaar ci moom ngay jaar ci moom ngay jaar di jaar ci ni ci gaa yi di jaaree door xëcc xatmul wilayatu dox ci ba génn ci samsul kunuus nga dugg ci ba génn ci maqamaatu xayrul xalqillahi nga dox ci ba génn ci daal di dugg ci biir mulku bi lu lu lu waay di wax ak nu mu ko waxee sëriñ nga koy dégg di ko xam maa la ko wax. bu génnee foofu nag ñu toppal la say garaat ñu la demal nga toog sa ruq bu la neexee demal bu la neexee toogal lépp dikk ku dikk ci yewit lu mu loola dikkal ko boo waxee rek ñu jox ko ko. boobaa nag toog gaa toog muy dox bi gaa yi di wax. foofu nga koy amee mooy. boobaa nag nekk la pôle. gis nga am nekk puj ba. waaw ci la bant yëpp branché wu te man ca cat la. maa la ko wax de. jën yi yanu di ca ami coonoog yooyu yëpp fekk ci puj bi. moom ma nga ca kaw rek tege. waaw ab sëriñ puj la. bant yëppay wàcc. lenn lu ko neex mën na ko yëngal ci biir mbaar mi. ak a wér. foofu lañ toll bàyyi sëriñ. foofu lañ toll. Euh, jërëjëf euh, Cheikh Ibrahima Ndiaye alquran euh, tubaarkàlla macha allah ak ni nga xam ne rek noonu la ñu àndee ak yow ci li nga xam ne rek mooy émission bi nga xam ne ni ñu koy ànd muy rek waxtaan ci li nga xam ne rek mooy alquranul karim waxtaan ci li nga xam ne rek mooy cosaanu réew mi ak aada. ak lépp loo xam ne rek tubarkàlla Cheikh Ibrahima Ndiaye al Quran di borom xam-xam maîtriser loolu turu yàlla wi waaye teg ci di liggéey li nga xam ne rek mooy ismullahi azam am ci xam-xam lool lépp nag lu mu lay wax wala lépp loo xam ne it mi ngi koy def jógewul fenn sukkandikuwul fenn itam ci téeréb suñu borom bii rek subhaanahu wa taala muy alquranul karim léppam ci lay dox euh, ñi nga xam ne it tubarkàlla ñu ngi ca bitim réew te am ay jafe-jafe naa foofu la ñuy tëj moo xam ñu dem ba liñ koy waxee rek lang mbaa ñu dem ba réer mbaa ñu dem ba seen wërsëg dëpp mbaa ñu dem ba jafe-jafe kii dab leen maanaam ñu dem ballang daal cheikh bi waaw bitim réew ñu ngi lay seetaan te soxla nañu la waaw loolu waaw gis nga nit hmm. bu jógee yàgg fam ne la mën na koo indi hmm. ko fa mën na koo indi mën na koo indi ah. wolof daan wax ni wiiri wiiri jaarindaari kon hmm. jërul wiiri dëgg la ñun nag suñum réew booy door a ñëw hmm. daa am fuñ lay jaarale booy dellu daa am fuñ lay jaarale hmm. nit bi door a fii ci Sénégal waaw dañu koy teeroo sarax buñ koy delloo dañu koy gungee sarax dégg naa la de foo ne lum sori sori ak lu la ko mën a téye ci sirru sadaqat am na ci sarax boo xam ne buñ la ko defalee même bu la tubaab bi doon patam patamee yeb la ci avion sax di nga ñëwaat fii ci réew mi mm-hmm. te ci jàmm nga fiy ñëwee mm-hmm. ni ñàkk ñaan lu am amee noonu la lang fenn bëgg faa jóge amee ay buntu waaye buntu sarax sëriñ mm-hmm. lu ko ci gën a gaaw amul buntu sarax lu ko ci gën a gaaw waaw amul ñoo ngi loxoy kese nag neexul kenn man nag bépp moodu moodu boo xam ne da ngaa yàgg fa nga ne te amoo suñu jëflantee nga commencé mos. Hmm. li ñëpp yi mos di ko mos. tukki nag waxoon naa fi baytaal ni ko. Ah. dañ koy waajal. ku waaj ba ku dem nag te waajoo. Hmm. da defi pexe di mos. ku dem te waajoo. da ngay defi di mos. da ngay defi pexe di mos. réew mi lu ñuy lijjantee fi am. dëgg la foo mën a ne nag mën nañ laa lijjanti nañ la xam rek. tubaarkàlla. ah waaw. junj nag day doy borom xel. waaw am na loo xam ne bu ñu ko yeggalee dañuy xuus xuusaat xuusaat te loolu laay bañ. <laughs> waaw tubaarkàlla junj dafay booy boroom xel. Mm-hmm. waaw kuy dem nag te tàggoo woo mën nañ laa defalay pexe ngay mos. waaw. lu dëgg. waaw ah, man daal waxoon naa ko gars yi. waaw. li ma mus mën naa ci musle waaye du lépp laay joxe. soxal dafa yaatu. <laughs> yow sa xol dafa yaatu loo mos mosal ci gars yi. <laughs> waaw tubarkalla ñu gis ne euh, tubarkalla fi nga xam ne gis nga si jaada bi nga toog macha allah. gis nañ matériel bi nga xam ne moom la ñuy liggéey. sëñ Baara Fall. waaw moo ko joxe addee. ndeysaan. matériel bi waaw 4 millions la. ndeysaan. suñu benn taalibe ci Amérique. waaw moo ñu ko yónnee. ni dee leen waxtaan ak sëñ bi di ko filmer tas ko ci àdduna bi àdduna bee ko soxla rawatina ñun yaa ngi dégg hmm. mbaxana yi ma sol hmm. pas américain léegi daa aju woon màkk ñëw mu fi indee ke cuuraayam jox la jox la jox la ko ni ma kër gi daal waaw <laughs> lu ma naan moom na sañse yi rafet di xeet du yi ma sol waaw waa Mauritanie ñoo ma ci yónnee lu bari ngay sol waaw ah man balaa may jox ma ci sëñ bi dee ci sol. samay bés daal bu nekk Mauritanie. am na nag waaye nee naa ko daal. waaw. loolu moom jeex na. ah. waaw sëriñ ñun dañuy liggéey tur yàlla sëriñ caaxaanuñ. barke borom doomu aadama dong dong dong taxatumaa toog ci der. dëgg la. man li ma liggéey ci tur yàlla sëriñ dem naa ba xam ni ñaanal nit tëwuma man yeneen laa soxla ci yàlla yu dul faj ajab nit. yeneen nga soxla. waaw yeneen laa soxla te maa ngi ci turu yàlla. Mm-hmm. yàgg naa ci lool. jël naa alal def ci. waaw Serigne jël naa trent deux millions tukkeeg moom def sept ans bi may ñëw ci réew mi douze mille laa dese. ndeysaan lépp ngir gëstu ci xam-xam. lépp ngir gëstu ji xam naa lu ne nag. Mm-hmm. am na lu ma xam loo xam ni. Mm. fu siinu mu ko ngaan ci àdduna. xam nga toogoon nañ fii di wax. ma laaj la wàllu asraar ak wàllu seet ak nangam dang nga eey sëñ bi ma naa man ma keroog da nga maa fereeme bi ma sëñ bi ma laa nga ne fii fii man la fii ah? du fu ñuy xoolee dañ fiy gise kon jeex la yaa ko wax di fii du fu ñuy seete dañ yaa ci delluwaat waaw ba tey loolu ndimbal la mhm. yaa ngi dégg waaw nee la ku munta gis lépp ci boppam mënut a gis leneen ci keneen. maa loolu. waaye ku yàlla dimbali ci sa bopp. Ah. bala yonent bi waxoon defoo ko yàccaaraloo. Ah. ngay namm yàlla. di doxal sa ruux. di dox ci leer. Mm-hmm. di jige jigelu suñ boroom. Mm-hmm. lan arab ya naan man arafa nafsahu faqad arafa rabbi. Mm-hmm. ngay wuti yàlla. ba yëg li ñëpp yëg ba suñ boroom ubbi la. na nekk ci nuurun ala nuuri yahdillahu li nuurihi man yasaau eh. lii yomb na ci nit ñi ak la leen di yombal ak lay dimbali nit ñi eh. suñu borom da koy da koy leeral rek ba mu leer nañ teg teg la numéro bu baax boo composé am téléphone bu sonné wallaay dëgg la fa lañ naa ne eh, fa la ñuy tëj émission bi à suivre la nag ndax dañ ci dellu siwaat kon gars yi <laughs> da leen ñu xaar de ñu ngi ci biir ak kan ki nga xam ne mooy Cheikh Ibrahima Ndiaye alquran di boroom xam-xam bu kenn dul naatable ci réew bi Sénégal mun naa ma am ngeen loo xam ne euh, tubaarkàlla mu ngi fi te lépp lu muy yëngatu ci alxuraanul karim képp képp képp ci lay dox te fees la ci del doon ci ay maamam jàngi ci àdduna wërngal këpp dellu si waat toog uuf lépp xam lépp te di ko doxe kon mbokk yi ah Cheikh Ibrahima lan ngay tàggoo waaw li may tàggoo ñu xam nga jamono yële hmm. ba demee Padoa Ville 2 waaw Pa yi dañoo toog ma yeewu ni ko njiitu réew mi mm-hmm. suñ boroom dafa ma wan démb mbiram mm-hmm. ci wàllu ay ministre ak yooyu mu bëggoon a fal ministre bu jigéen mm-hmm. ma ni ko waaye na ko def bu góor jamono bu ministre nekkatee ci xelam walla ci ay xalaatam. Mm. premier ministre. Mm. moom bu mu ko def jigéen na ko def góor. Mm. am na ku ma yàlla wanoon. waaye duma ko wax ndax kooka faloon nañ ko lu yàgg. waaye moom daal jamono bu xelam dematee ci premier ministre na ko def góor. na ko def góor. te réew mi nag premier ministre. baax na fi lool donte politiciens yi bëgguñu ko fi kon jeex na loolu message la bu ñuy envoyé euh, tubaarkàlla Cheikh Ibrahima Ndiaye alquran moo ko wax kon mbokk yi euh, ñu ngi doon ànd ak yéen. di leen ziar bu baax a baax te di leen bëggee ak mbokku internautes yi ñi nga xam ne mu ngi doon ànd ak ñun ñu amoon mbégte di partager ak yéen li nga xam ne mooy révélation yi nga xam ne ni Cheikh Ibrahima Ndiaye Al Quran mu ngi koy def ci li nga xam ne rek mooy wàllu diine di ko def ci wàllu euh, liggéeyam bi nga xam ne ci lay def wàllu li nga xam ne rek mooy euh, turu yàlla wi waaye ci li nga xam ne rek mooy ismulaay azam euh, tubarkàlla mu maîtriser ko lool xam ko tey di ko doxe di ko jëfe tubarkàlla ba ci ay maamam ba léegi kon nag mbokk yi l'international mu ngi nii Cheikh Ibrahima Ndiaye alquran mbokk yi moom lañ doon dalal di leen jox dox daje ci yeneen i émission yoo xam ne dañ ci ànd ak moom asalaamualeykum aleykum rahmatullahi taala wa barakaatu. jàng ci barkeb sayxi faddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bismil ilaahi ci barkeb sayxi faddilu mi buru yàlla dolli noo ay maqaam yàlla woo bismil ilaahi ci say ci faddilu mi buru yàlla dolli noo ay maqaam yàlla woo